jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su weeru koor weeru sell weeru baalonte àq ñuy ñaan rek képp koo xamante ni eh, ñu egg ñuy seetaan ñu lay baalu àq bu baax a baax a baax di la baal di ñaan suñu borom boole ñu jéggal ñu ngi toog koo xamante ni kilifa la naam am na ñoo xam ne miin nañ xar kanam gi am na ñoo xam ne xam nañ ko mais am na ñu koy seetaan ñoo xamante ne xamaguñu ko muy la Joom Massyla nag di yëngu ci wàllu ñaan nekk koo xamante ni ku yàlla suñu borom baaxal la ñu fas yéene dalal ko tey waxtaan ak moom euh, parce que bari na lu baree bari loo xamante ni ñu ngi koy gis ci réew mi ci ñaankat yi su ko defee ñu mën a wéyal waxtaan bi kilifa gi maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp maa ngi lay nuyu di nuyu ki nga àndal di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu àdduna bi. gis nga damaa xawoon a voyagé sax mais damaa agsi rek mm-hmm. ma ni ci kàttanu yàlla naa fexe ba kàddu moom su xasee génn sa gémmañ rek mm-hmm. daanaka nga def ko mooy li gën ndax voyagé war naa voyagé bu sori sax mm-hmm. mais damaa ñëw rek ma ni naa dem def ko ndax euh, gor moom soo waxee moom rek da nga koy mottali di wax ni àdduna ñoo ngi leen di ziar di balu ñëpp àq di bal ñëpp àq di ñaan yàlla weeru koor yi lu ñu ci woor yàlla def ko ay ngëneel ci daraje Seydina Mohamed di nuyu waa fi ma jóge di nuyu sama waa dëkk bi nga xam ne falaa fekk baax muy li ko commencé ci kër baakar kër Baaba kër Njobba Tayba Njaay ba Mbay ba Sanc kër Malle Mina Mbayen maa ngi tund Kajoor wépp maa ngi leen di ziar di nuyu waa Ndëkku waa Njëwriñ waa Kebe waa Njaañ waa Ndukuro waa Kool ñoo ñëpp maa ngi leen di ziar di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa la euh, lan moo la dugal ci ñaan. waa ñaan nag daanaka ni ñaankat bi mu ngi war a commencé les arab di wax uslub bi loo man di gis dafa am sabab. Hmm. ñaan yombul. Hmm. li tax ñun na ñaan yombul mooy soo jàngul mënoo ñaan. Hmm. waaw soo jàngul mënoo ñaan. wala ma xam di def lu compliqué wala ngay def loo nga xamante ni xañ na ku ci nekk nag ak euh, sa sa sa sa gis-gis mhm. ku ci nekk ak sa gis-gis mais ñaankat kat ñaan yombul mhm. waaw loolu daal laa la mën a wax ñaan moom lu mën di xew rek mhm. mooy ñaan yombul waaw fan yi gis nañ ay sëriñ soo xamante ne dañ leen wane ci tele bi saa su ne ñuy def ay ay ay xar baax di wane seen bopp euh, en tant que ñaankat yow bi nga ko gisee ban taxawaay nga ci am waaw loolu moom bàyyi jili wallahi wal quraan wasim ak sama koor gi damay rus xamal tax damay rus ñu booy nekk ci daara ji yooyu lañ lay njëkk a jàngal ak luy toj liggéey chaque àllarba sëriñ bi dala ci yee am na ci yoo nga xamante ni maanaam ki jàngul mooy toog sax di ko def mais ki jàng xam alxuraan la ko commencé ci alif lam mim salikal kitaab laa rayba mu hudan lil muttaqiina ba fallaxe ak naas si suñ borom defal mu mokkal ko ñun niñ ko mokkale wax dëgg yàlla doo def ay kiraamal ayni yooyu waaw yooyu dëgg yàlla fii rek la am na ñoo xam fii ñu toog am na ñoo xam ne suma ma la ko defalan yow mais man jomb naa rus ko. Hmm. billaay wallaay talaay loolu dañuy dafay tegtale ni nu ñuy nax nit la pour lekk xaalisu nit ki maanaam pour jommal ko. Hmm. pour mu tiit mu nekk loo nga xamante ni euh, dafa ñaaw daal bu koy dundee. Hmm. bis mi ngi ñëw suñu borom dee la teg lu tax. nga doon nax jaami yàlla yooyu. kon yow eh, su ma déggee wax ji kon yaa ngi nangu ni li ñuy wax naan sëriñ si ñu ci bari dañuy naxaate kon loolu yaa ngi koy bëgg a dëgg. waaw bu ñu doon téeméer bu ñu doon téeméer juróom-ñeent fukk yëpp fukk laa ci tànn juróom-ñeent fukk yëpp ñi ci ëpp dañuy naxe hmm. waaw loolu amu si sàkka waaw amu si ki sàkka sëriñ si ñuy wane amul kenn koo xamante ni day day day yëngu ci wàllu boobu di jëflanteeg masil la mu koy ñaanal wala mu koy def ay mbir. am naa ci ay xarit ci sëriñ yoo xamante ni leer na ma leer ni bi ma ak ñoom xam naa ne ñii leen yàlla may. Hmm. damay nangul nit ndax ku dul nangul nit yàlla suñu borom joxu la cër. am nañu yàlla may xam-xam ñoo nga xamante ni ñi ngi koy jëfandikoo ñi ngi ñaan yàlla suñu borom di nangu. xam nga ñaan mu nangu nag mi nga aju ci yàlla suñu borom nit man ngaa bare xam-xam mais nga war a ñaanal nit ki suñu borom dogalul mu nangu loolu teewul kooka xam na dara mais ñaan mu nangu suñu borom mooy jox nit ijaaba rasul mm-hmm. waaw yàlla mooy nangul nit jullit nag sañ ngaa sabablu def xam-xam yi nga xam yépp suñ borom tënkal la ko maanaam nga nga mokkal ko di ci ñaanal nit yàlla léeg nga ñaan mu nangu léeg-léeg nga ñaan du bañ a nangu. Hmm. loolu moom dogalu suñu borom la. Hmm. waaw. mu doon loo xamante ni actuellement euh, léegi suñu doon laaj ki nga xamante ne mooy def ay mbiru xar baax ak kan mooy sëriñ sëriñ nan la war a dundee lan mooy sëriñ. xam nga suñu maam yi am na ci ñoo nga xam ne. Hmm. dañoo mënaan fas man sunguf xam ay reen ku ci nekk ak li nga maîtriser. nga jàng ko ba xam ko nga di ca ñaan yàlla defal la résultat mais da ngay nekk ci benn mbir ba mu neex la rek tey nga gis ni léegi dem def affaire sëriñ moo gën a yomb ndax moo ëpp ay naxaate. Mhm. sëriñ saa ngi rey waa bitim réew. Hmm. ñu ngi leen wallaay ñu ngi leen di lor. ndax léeg-léeg euh, nga dégg fi nit ni la man kat sëriñ diw jëflante na ak moom mais la ma ñaanal la ma gisuma ko. te kami wax naan la ma ñaanal bu fekkante ne woon sëriñ la boo nga xamante ne sax bu xam dara da nga naan. waaw daa juum. Hmm. du dëgg. Hmm. mais xam nga mooy li ma la wax rek ci sama commencement wax ñaan mu nangu yàlla suñu borom moo koy dogal ci nit. man ngaa sonn ci nit tuuti nga ñaan rek mu antu. Hmm. ngay sonn ci nit ñaana ñaana ñaana ñaan jël sa kurus werde werde werde jël turu yàlla wu ne def jël euh, turam boole kook euh, xaatim bi adat ko toog du werde werde werde ba sonn suñu borom du ko def. Mm-hmm. yàlla moo dogalul ni kii dina ñaanam dina nangu. Mm-hmm. parce que nit lu gënul ci moom suñu borom du ko def lu gën ci moom rek la yàlla suñu borom di def mm-hmm. waaw. yow mos ngaa ñaanal nit mu nangu nga yëg ni lii kii li ma ko ñaanal am. du dëkk du du du jeex. mais léeg-léeg ma ñaanal nit du nangu. Mm. waaw. léegi kooku boo ko ñaanalee nanguwut euh, lan ngay lan ngay fas yéene waxtaan bu ma ñaanalee nit nanguwul léeg-léeg danaa làmb ci sama jibooy bopp. Mm. ci ñi nga xamante ni mën naa am ñooña bu ñu demee yàlla jubale ko ak kooka ma jox leen xaalis ni leen ñaana leen ma ci biir mii mais li may dal lu néew lay doon. bu subaa dégg sëriñ si ne danaa ñaanal nit du nangu ma boole ko nit pour mu ñaanal ko ndeysaan sëñ Basile la. waaw mais xam nga ñaq dafa doy waar. Mhm. doomu aadama bi nga xamante ni dafa ñaq jox la alalam ngir am. confiance bu mu am ci yow. Mm-hmm. même boo ko ñaanalee yàlla suñu boroom mooy nangu yàlla lànk loolu. Mm-hmm. man ñëw ci yow yàlla rus la. Mm-hmm. yàlla bañal ma. bu ko xamee noonu rek doo sonn. waaw. monsieur la euh, wax ji leer na trop am na solo euh, ma buggoon rek ñu xuus tuuti dugg ci làmb. lan moo la dugal ci làmb. waa làmb nag xam nga euh, da ñaanal nit mu nangu. maanaam nit am combat ñu ni la nañ dem boole boole la ak machine la mm-hmm. ndax am nañ ci moom yaakaar mm-hmm. loolu moo ma dugal ci làmb mm-hmm. waaw. première mbër bi nga ñaanal xam nga. du du jeex. ki nga xamante ne moom nga njëkk a ñaanal ci mbër. indi naa mbër sept ans mus la daanu. sept ans sept mus la daanu musuma wàcc ci géew bi. juróom juróom-ñaari at. loolu kay lu leer la musuma wàcc ci biir géew bi. mais monsieur la yow bi ñu loolu loolu loolu ay à peu près sept ans mu la yow kon nan nga def ba jékki-jékki rek commencé feeñ ci làmb ñu bari ràññee. waaw mais dajay am làmb yoo nga xam ne nag combat capital lay doon ca kooka. pour nga ñëw jëmmal ko taxaw ko day dalal xelam. Mm-hmm. ba mu gëm ni yow am na foo ko teg. Mm-hmm. ndax xam nga koppar yan lay jox day takku takku koo nga xam ne wax dëgg yàlla yaakaar ja day foor boo ca desee taxawee rek euh, taxawaay bu jekk dafay xaw am nu mu demee loolu rek la. man de combat bi ma la njëkk a gis euh, stade Léopold Sédar Senghor lool dox ci diggante bala Gaye ak Bomba euh, ak ak Gris Bordeaux daa mel ni boobu nga njëkk wàcc. waaw boobu wàcce naa ci biir géew bi. wala du boobu nga njëkk a wàcc. daa boobu laa njëkk wàcc ci biir géew bi. Hmm. am na ci yeneen combat yoo nga xam ne nag daanaa wàcc joxe ay tegtal delluwaat toog sama place ndax booba xam naa ne am na ñoo xam ne sax xamuñu ñi ni damay ñaan hmm. mais làmb dama ko man waaw dama ko mën ñëw ci làmb danga koo mën ma gisoon nga yor ay sengoor yu weex di tibb suuf ci digg géew bi di ko yóbbu di ko def ci sengoor yi loolu lan la woon waa loolu moom sama mbir la <laughs> Ah. waaw sa mbir loolu moom sama mbir la loolu moom. Hmm. perkal hmm. sama mbir la. loolu moom sama mbir bopp la moom. loo ci doon liggéey loolu mën naa cee fas lu ne. Hmm, mën naa cee fas lu ne. suuf bi ci digg waa suuf bi ci digg géew bi nag euh, loolu moom xam nga banne baatin baatin daa nëbbu. waaw am na xam kenn du ko weer. ndax boo ko weeree njariñ la dootul bari. waaw loolu la. mus ngaa gis euh, mus ngaa ànd ak mbër muy bëre ji nga xam ni kii combat bi muy dem nii da koy ñàkk amu ci benn solution nga liggéey liggéey ba sonn ci combat bi mais amoo ci benn pexe. ci mbër. Hmm. waaw dama woor nag loolu moom musaguma dal. Hmm. déedéet. xam naa ne bu ma toogoon fii ñu la bàyyi ji li mbër sàngam day daan. Hmm. li ma lay njëkk a wax bu ànd ak dogalu yàlla. na nga dégg sama sama interview yëpp li ma lay wax mooy jàppal date bi ak heure bi ak waxtu wi. loolu laa lay laa lay njëkk a wax mm. ndax xam naa ne am na loo nga xamante ni su ma ko yëree ba mu leer ma ne gisuma lu koy teppi mm. sañ naa cee waat waat sañ cee wax ni lii bu ànd ak dogal yàlla dara du ko sensé ah loolu moom xam nañ ko. looloo taxoon nga waat waat wu rëy boobu doxoon ci diggante komba Modou Lo ak Eumeu Sène nga waat ni bu ko dóoru nga daanu nga dagg sa kurus. Modou Lo Eumeu Sène la boo nga xam ni noonu la mën na demee ndaxte Modou du woon combat boobu bu mu war a ñàkk ndaxte yàlla suñu boroom bu la na lay dimbali day am nit ñoo nga xam ne da lay boole ak ñoom hmm. maa ngi koy nuyu sax ku baax la nit ku baax ku gore la hmm. ku jafe la ci doomu aadama yi ndax bu la yàlla joxee succès yàlla jox la ay nit ngay ñaanalante ak ñoom ngay déggante ak ñoom de laami soo yu baree baree baree baree baree baree baree nit ku baax la daal baax daal wax dëgg yàlla moom lañ xam ci moom hmm. nit ku lay ñaanal da koy fonk fonk doomu aadama dafa am solo ndax yàlla doomu aadama la gën fonk ci li mu sàkk hmm. waaw. ma ne dóor mu daanu bi. lu tax nga waat ci. ba wax ni dangay dagg sa kurus. waaw loolu moom wax dëgg yàlla dañ koo gisoon. Hmm. te boo ma jege woon dañuy ñëw ba ci biir géew bi am na ñu ànd nag moom damaa ñëw ba ci biir géew mën leen fii la ko mu fii la diw fii lay daanu mu ne ma nga man ko li ma la nii na ko jàpp fii lay daanu loolu kay loolu amus loolu loolu dara hmm. déedéet loolu dara. mais lan moola jëlee ci mosil la combat Balla Gaye Gris Bordeaux nga ànd ak Balla gay def ci lu ne euh, jékki-jékki jóge ci Balla gay dem ci Modou ak diggante Balla Gaye ak Modou Lo daanaka bu doon match la dañ naan bi la diggante barsa ak Real lan moo la jëlee foofu. waa mais xam nga yàlla moom euh, mooy dogal. law nga xamante ni da koo neex. li ma mën a wax mooy ñoom muudu yàlla suñ borom dafa dogal ni ay nit yu gëm yàlla lan. gëm yàlla mënta weesu nga gis nit ci beneen camp jikko ba jàgg nga soxla ko faf yàlla soxla bi nga ko soxla mu nekk. Taïba Ndiaye ak Kër Bakar hmm. yaakaar naa ni loolu jafe-jafe waru caa mën a am hmm. ndax sama ànd ak nit koo mën di àndal rek du hasard hmm. ndax yàlla suñu boroom mooy def ni ñi war a ànd ñooy war a ànd ñi wërta ànd du ñu ànd lool la rek mais du dara waaw. dàqalikoo bi daal rafet na sa diggante ak Balla Gaye non loolu moom wax dëgg yàlla euh, jeex na bëgguñu sax di ci wax. la ku baax la mënumaa wax ci moom dara lu ñaaw parce que wax dëgg yàlla xamaluma ko dara. Mhm. xam nga nag bu àdduna lépp jeexee. Mhm. nañuy tegginal kàddu yi. di wax ci nit loo nga xamante ni lu rafet la. Mhm. ndax nit boo jógee jël micro pour di wax ci moom lu ñaaw am na ak njaboot. te mbër yi ñoom ñëpp ku ci nekk benn lañ bu ñu bëreewul dañuy bokk ndey bokk baay. Euh, seen am-am seen njaboot ak ñan ci war a mën a dimbali te seen ginnaaw dafa yaatu kon jàmm rek moo moo xaj fépp daal. mais sëñ si la euh, yéen a ngi ci guddi gu bër setagul ndax yaakaar naa jàngoro yëpp dañoo dajaloo ngeen jël Siteu te Ama Baldé moom yow yaa ma gën a xam ne siti la. waaw comme li may wax rek waa loolu moom duggagunu ci te xamaguñ noo nga xamante ni noonu lañ ci duggee buñ ci duggee rek incha allahu rabbi bu fekkente ni lu ñu war a mën a wax la man nañ cee yaatal pour ñu wax ci. am ngeen date la vingt cinq décembre incha allah. waaw wax dëgg yàlla date bi maa ngi koy door a dégg xam naa nag jombul incha allahu rabbi daan euh, xam euh, incha allah euh, nañ bàyyi ba ci kanam daal ba nga xamante ni yëf yi gën naa jege ndax décembre wax dëgg yàlla sori na trop métti na ñaari mbër yëpp. Hmm. waaw sori na trop trop trop trop trop trop. mais sëñ bi combat bi dugalagoo ci sa loxo di liggéey ci wàllub ñaan ak yu mel noonu. wax dëgg yàlla ki yëguma ci sax ndax xam nga ñu ngi ci koor gi am na loo nga xamante ni wax dëgg yàlla nit da ngay wax sa aqulaay taala hmm. bul bëgg bul bëgg aw tur bu wax loo nga xamante ni ëllëg mën na laa indil benn looy rëccuwaat parce que fii loo fi wax rek bu bu jamono ñëwee dañ la koy génnewaatal hmm. xam nga li ma la wax hmm. waaw wax dëgg yàlla euh, combat la boo nga xam ne daal ñoo ngi ñaan yàlla yàlla suñu boroom promoteur bi yàlla dimbali ko te kàttanal ko hmm. ndax mos naa ko wax ci benn télé. làmb jooju ki ko tëgg ku jara dimbali la ndax li tax mu jara dimbali mooy euh, yaakaar naa mooy combat bi ëpp xaalis. Hmm. ci komba yi. ban combat mooy combat Ama Baldé ak Modou hmm. waaw te xam nga lu tax ma wax la loolu. ñaari mbër yi. yàlla moo leen defal dayo bu bu bu dayo bu toll ni bi ñu yor. état na dimbali promoteur boobu ak mboolem promoteur yi te ñu bañ a jël taxas wate ko genn wet ndax promoteur yi amuñu xaalis bu ñu denc dañuy taqale ngir dimbali doomu aadama yi ngir di ca jot seenu sutuut am réew nag boo ca nekkee da ngay doxee njaaxaanaay ndax mbër yi amuñu lu may lu dul làmb promoteur yi amuñu lekkul làmb te dañuy bàyyi seen liggéey jël seen ay millions dem def ko ci buñ bëggee jàppale bàyyi jiili bàyyi kële xam nga loolu dafay xaw a métti ñun ñëpp ay sénégalais lañ. Mm-hmm. waaw mm-hmm. te loo nga xamante ne nag du du continuer soo ca nekkee da def lu rafet. Mm-hmm. waaw. mu mel ne actuellement gis nañ ay mbër yoo xamante ni ñu ngi cumuler ay contrat ku ci mel ne Balla Gaye jël na ñett avance euh, gis nga Boy Niang jël na ñaar euh, Gris Bordeaux benn laam Modou Lo ba tey fi ñuy wax ak moom benn avance la jot yéen a ngi xalaat jël ñaari avance wala ñett avance wala yéen da ngeen di bëre combat par combat. non loolu moom ci problème mu jël avance ak ñàkk jël avance comme la ma waxaan rek mi nga aju ci biram ñing ak waa ak ñi nga xamante ni ñoo seq ca loola. waaw mais soo comme koo yéene jàmm soo sañeen mu signé fukki contrat. Mm. Uh, làmb ji bàyyi jiili. Mm. bu ñu dëgg. lu naqaree dégg nag lay doon. promoteurs yi ci njuumte lañ nekkan yaakaar naa mos na maa déglu ci Mouhamed Ndao Tyson mu ni leen promoteurs yi ci erreur lañ nekk te erreur bi nekk heure buñ ko reconnaître mbër doo dafa fayee ko soixante million mhm. su ma juumul su fekkee damaa juum maa ngi jéglu mais yaakaar naa noonu laa ko déggee woon mhm. euh, xam nga lii li li nekk erreur mooy genn ngoon ñu fay la ci cinquante million nga wone ginnaaw mbër mu koy def yaa ngi ci erreur doole wéyul kartan wéyul man may man man wéyul sa moroom ma ngi ci wet gi gënoo ko ëppoo ko ab juddu pour mu xëy am ñaar téeméer dafay jafe. wane ginnaaw loo ko tuddee. maanaam bañ a jël xaalis bi di ko xeeb loolu laa ne jaadugul mm-hmm. njuumte la foofu la waxee. kon yow fi mu toll nii dafa da ngay conseiller ñi nga xamante ne say rakk mbër lañ ba bu ñu gisee avance bu ni mel ñu jël ko. kun ci mën a jox fukki avance jëlal kun ci jox xaalis xaalis bi du leen sonal boo ko jëndee ay tabax ko mën a laa mbër su bëreetul ku ko yor ah seen tour bi du leen ko jox làmb ji bu làmb ji jeexee ngay xam ne Sénégal ànduñoo kenn. Mhm. même ñi ànd ak mbër nañ xam ne tamit loolu nañ ko jël jiital ko mbër yi bu ñu bëreetul daanaka ni dootu ñu am benn benn succès boo nga xamante ni dañuy toog rek di leen fàttaliku moo tax ci seen digg carrière boobu ñu nekk lu leen promoteur fay pour ñu am ay combat yu bari nañ ko jël. neen lu ci waaye man di wax nag di ko jéem di wër la jël nangam di wër la jël nangam danga bokk bokkul ak moom dara rek parce que ku ci bokk ak moom dara. Hmm. bu nu amoon bàyyi ji lii ay cent cinquante millions kër gu mu fanaan wala deux cent millions wax dëgg yàlla nga bokk ak kooku da nga ci am fierté wax dëgg yàlla hmm. nañ wax yàlla. Hmm. noo gisee Tapha Tine booy euh, Boy Niang. waaw loolu combat la boo nga xamante ni combat bu metti la nag. Hmm. waaw combat bu metti la. metti ci lan mystique wala. non combat bu metti la. waaw combat boobu combat bu metti la. metti ci ban waaw combat bu metti la Tapha am na ay bokk booy Niang am na ay mbokk. Hmm. Hmm, ñoom ñaar sa gis wax dëgg yàlla Boy Niang am na mystique macha allah. waaw. am na am na mystique. ñaanu baatin wala ñaanu am na baatin am na mystique. Hmm. waaw. mais am na ci mbër mu ma gis muy gemb muy jóge Bargny. Hmm. kooku ngembam dégg naa Xaadim Samb wax ko waaye laata mu koy wax. Hmm. am na ku ma ko wax ginnaaw ko ni xale bi ngemb lu ma gis mu di ko ngemb. ku naqaree daan la. man de dégg naa xale bi ñetti mbër wax ko euh, kii papi général wax na ko fi euh, bari na ay sëriñ soo xamante ni wax nañ ko fi Massi la moo ko waxaat muy Quench si waaw mbër mu am mbër mbër mbër la moo nga xamante ni xaw ma ku koy gemb mais naxu ko. Hmm. wallaahi wal quraan. <laughs> ngémb lu mel noonu daal du ngémb gone. xam nga wax li nekk ci nit ki mhm. yàqul dara te loo wax di nga ko waxaat mhm. loo sedd di nga ko seedewaat mhm. te boo seedee loo wër seede ci ci kanamu doomu aadama yi soo demee ci kanamu yàlla yàlla dina la ko seedewaat yow ma naqtimu ala afin watu kalimina wa tasal arju bi ma si yaksibun yàlla dana tënk lépp làmmañ du wax cër yëpp suñu borom dana ko introsé mu wax kon lépp looy sedd rek na nga ko seedewaat ndeysaan am na solo ñu ñëw ci diggante Bombardier ak Balla Gaye nekk na komba boo xamante ne revanche la Balla ñëw pour jël revanche Bombardier ñëw pour confirmer ban combat boobu noo gisee. waa combat la boo nga xam ne tamit buñ ciy wax bu ñuy wax buñ jëlee suñ buum sëriñ teg ko leen waxtaan ci ngir suñu xam bopp nii. Mm-hmm. la boo nga xamante ni tamit combat mm. waaw. dina neex mën naa neex mën naa naqari ci kaw mu neex Balla Gaye hmm. waaw. bu Balla bëggee mu neex mu neex bëggee mu naqari mu naqari. mu naqari. kon Balla daal waaw mu combat moom moom moom moo maîtriser parce que moo mooy jël si revanche. Hmm. waaw. dóor mu daanu mën nañ ko séntu ci komba boobu. noo wax dëgg yàlla gisaguma ci dara loo nga xamante ni mën naa ko cee wax te am na yoo nga xam ni. Hmm. sax wax dëgg yàlla. même buñ ko gisatee. Hmm. personnellement duñ ko wax. Hmm, bàyyi nga léegi waaw ndax bàyyi nañu wax ci làmb daal ci côté boobu mel noonu ndaxte xam nga ay nit dañ lay bëgg nekk ba bitim réew. Hmm. xam nga euh, kenn mën ta wax lépp daal nga ngay toog di wax yoo nga xamante ni ñoom boo ko waxee ni nga koy waxee man na leen man na dañ lay sopp sopp boo nga xam ne daal te xam nga nit amul lu dul. genn waa ñu ko sop voilà. mu nekk loo xamante ni euh, kon sëñ euh, Massila boo ko defee daanaka da xew ci réew mi de combat bu jot ñëpp di xaar Massila indi combat di way daan. waat ci kaw euh, nit day toll état boo nga xamante ni. Mm-hmm. deretam mën naa tàng mu gis loo nga xamante ni luy ñëw la mu wax mu wax ko. Mm-hmm. mais bi ci man di topp alxuraan du xewi. Mm-hmm. waaw te ñun <laughs> yàlla jox nañu alxuraan ku mu neex ak mu naqari am nañ baatin waaw lool moom amul sikki saaka kon wax dëgg yàlla xeew bi moom ci alxuraan ju wér yaakaar nañ duñ ko def waaw loolu moom yaakaar nañ ko. ana Moodu. Moodu mi ngi këram nag xam naa. ci li ma foog asta nga ko mujjee gis. yàggul wax dëgg yàlla. seen photo bi bi nii fan Moodu xa lool këram la woon de dafa mel ni kër la woon këram la woon këram la woon. ci biir koor gi la wala après ci bi ci biñ ko avant ñoo woor loolu yàgg na. Hmm. avant ñoo woor waaw. dafaa demoon seeti ko wala da demoon pour liggéeyal. Moodu famille lañ wax dëgg yàlla Moodu famille lañ famille lañ. wax dëgg hmm. yàlla waaw. famille lañ ndax tey ba njaay kër baakar benn la hmm, waaw. loolu ñëwoon tey seet si la ne si la. dama laa bëgg a déy maa bëgg a jëlaat avance Balla Gaye 2 loo koy wax. Moodu ndax dëgg yàlla yàlla suñ borom dogal na ni aw fitam dama ñëw fekk ko ak moom xanaa xamoon nag tey dinaa la wax loo nga xamante ni dara du ko dindi. Hmm. nit ñi nag buñ ko déggee bu ñu ko tekkee noo nga xamante ni waxewuma ko noonu xanaa xamoo làmb fii ci ci euh, fii Mm-hmm. bu ñuy wax ci tanoor yi ñi nekk ci kaw mm-hmm. ma wax la dëgg mm-hmm. Balla Gaye la ak Modou ñoom ñooy làmb ñoom dong ñooy du ñoom nekk dama la ñoom ñooy làmb ñoom la yàlla defal succès bu tol ni bi mu leen defal ci làmb saa yi làmb naree ndër xaw ma daanu rek wala làmb nar wàcc rek buñ tëggee buñ organisé Balla Gaye ak moodu loo rek làmb day jugaat jëm ca kaw. xam nga Baye Jili Modou dafa mën a bëri xam nga boo waxee danaan li ngeen seq mais dama seetaan boobu sequñu dara wax dëgg yàlla. mën naa ni xam naa ko sax mais boobu xaw ma contre seen contre ëmm seen bu njëkk ba. bi ma ko seetaanee laa leen ni booy bi mën naa bëri trop. Mm. waaw mën naa bëree trop macha allah. Mm. waaw. Siteu Papa Sow combat bu gaaw ci sama calcul lay nekk. <laughs> mosul la léegi dootul wax dara lu mu gis calculam lay wax. waaw ci sama calcul xam nga lu tax. Euh. combat bu gaaw lay nekk. dégg naa ci dóor mu daanu mën naa am damay confirmer loolu. ah déet wax dëgg yàlla man gisuma lool de. Hmm. waaw Papa Sow daal mbër la moo nga xam ni mbër mu mag la te yàlla may na ko. Hmm. te boroome bokk la te ci defet la jóge am na lu koy xaar. sute su ma juumul ci victoire la jógee wala ci defet hmm, ci ndam la jóge hmm. te damay seetaan ay vidéo hmm. ku baax la. waaw yi may dégg mu di ko wax noonu. nit ñi di ko jël di ko def ci rajo sociaux yi. esthétique yooyu noonu. waaw gëm naa ne li mu am mi ngi koy partagé ak doomu aadama yi te dégg naa mu ni nit ñëw na këram di ko seet. Euh, ngir di ko wax soxla. Mm. mu génn jox ko lam ko jox xeeb ko jàpp naa ne ku baax rek mooy def noonu. Sénégal walaay ñi topp mbër yi ñoo bëgg indi ay détails yoo nga xam ne amul rek mais mbër ñoom ñëpp benn lañ. ay xol yu rafet la ñu yor parce que ku ci nekk da ngay jóg di solidarité mm-hmm. ak sa moroom. Mm-hmm. bu nit amee jafe-jafe kon loolu mooy Sénégal. mooy Sénégal. Mm-hmm. waaw mooy senegal daal te carrière mbër yàggul. kon nag xale bu ci ànd ak mbër ba dugg ci loo nga xam ne waroo cee dugg. mbër ma dina dem toog ay kilimam di ko upp yow mi nga xamante ni nag dangay indil jafe-jafe xam nga léeg-léeg sax dangay nekk ci biir géew bi xale yi di indi ay saaga wala di indi ay détails te dama leen di waxaat baatin du jéggale te nit léeg-léeg di nga ko def loo nga xamante ni moom jéggalu la nga dem nga jëflante ak baam waxi baatin nag laa lay wax nii mm-hmm. waaw. kon xale yi ñu bàyyi ci xel daal des fois kilifa yi ñuy dajeel seen waajur yi dañoo am ci ñoom yaakaar mhm. te yaakaar yooyu seen waajur yi am ci ñoom nañ fexe ba bu mu deñ mhm. ndax ku ci nekk sañ ngaa bëgg sa mbër mhm. ku ci nekk sañ ngaa farak sa mbër mais nañuy rafetal kàddu yi ci rajo sociaux yi dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk àdduna bi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay nit da lay wax dara sax nga dem tuuti rek ba ci yàgg ngeen dem rek nga nekk ak moom ay mbokk xam nga kon loolu dafa nekk loo nga xamante ni looy wax nanga ko seet looy dugg nanga ko xool bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. waaw. jërëjëf euh, sëñ Sylla euh, maa lay bu baax euh, di kontaan bu baax ci dalal gi nga xamante ne dalal nga ñu ko mm-hmm. ci làmb rek nga yëngu wala da ngay faj yeneen faj yu dul ay affaire làmb. ñoo làmb moom bu dee dëgg rek nga bëgg a dégg moo gën a néew ci li ñuy liggéey mm. waaw. ci lan ak lan. yëngu ci wàllu Euh, ñi nekk bitim réew ñoom nag dañoo sonn fi ne trop waaw dinaa yëngu ci bayre ak wërsëg ak yu demee noonu xam nga sax dangay ngay rus di toog naan damay def nangam parce que arab dafa wax ni ana ana laysa lahu te loolu dafa bari li ñuy liggéey li ci gën a néew xam nga AVC moo gën a moo gën a bari ci àdduna. man dama koy faje kaña kaña. kaña yàlla seede na ko ak yonent bi. kaña menn bi kaña kaña dama koy faje noo ko sëñ da loolu samay mbiri bopp la. koy lekk bu baax. mat faj ci nit ba mu wér di dox. Hmm. waaw te euh, kaña ku am secret ba muy soo ko lekkee doo AVC. secret bi kaña di àndal. maa la ko doo AVC. ilaa yubbi di diiru dund. wallaahi loolu kay maa la ko wax fii. sëñ bi loolu doo ma ko ah, kenn du ko weer boo ko. weeree wàccee micro bi boo ko weeree amul non moom lu ñuy liggéey la. Ah. lu ne lu leer nag laa lay wax nii waxewu ma pour nekk ci rajo sociaux bi toog nii di wax nii. Hmm. waaye li nga xamante ni moo nekk. kaña li muy àndal ku ko lekk. Hmm. doo AVC. Hmm. loolu maa la ko wax. ñam am jafe-jafe ci seen wàllu sëy. te ñi nga xam ne bëgguñu wujj loolu moom suñ borom dama cee jox cër. voilà su dem Kébé bi joor nga xam ne wujj rek lay bañ a dégg. waaw loolu moom sama yëf la. waaw loolu moom yàlla man loo na ma ko. Hmm. torop tey bàyyi ji li lu ma mënul boo ñëwee dama naan mënuma ko. dañ may booleeg nit ñu ñëw ma xool ma ko xool mën naa la ci citeel benn nit. Hmm. boole na maa ngi nit ab promoteur lamb la. Hmm. su déggee lii may wax dina wax ba mu ñëw. bi mu ñëwee ma ne ko koo ñaanal mu ne ma tay a gis sëriñ bi wax loolu ma ne ko wax dëgg yàlla du xool naa ko yàlla jubalewu ma ak moom na dem loolu la rek. kooku noonu def nan ah ba fi ma wax yow de teranga bu ne la may la may jox. ndeysaan damay seetal nit. Mhm. diggante ay nit yu war a sëy. Mhm. man leen seen diggante àndul. Mhm. léegi kooku xam nga lu mu la yaa di wax foofu ci saa ndax man nga ma cee dimbali. ma ne ko man bu ma nee baaxul. wëlbatiku bëgg la cee dimbali damay lekk sax damay damay damay xool nu ma lekk sax xaalis. Mm. mais bu ma nee a baaxul ba mën naa la cee dimbali rek maa ngi commencé indi yeneen jafe-jafe. Mm. Mm. la mu ni ma yow maa mun ma lii benn góor moo ma ko musoon a wax ca Kaolack yow yaako ñaareel. ndeysaan waaye ba fi may wax ak yow nii teraanga bu ne damay woo di ma ko jox. ndeysaan waaw lool loolu la. ndeysaan waaw. jërëjëf euh, Massyla nga maa kontaan naa nag bu baax a baax a baax ci dalal bi mm-hmm. nga ñëw fii nga xamante ni mooy bërëb bi di la ñaanal suñu borom guddal sa fan ànd ak wér ndax bari na ci ñoo xamante ne vraiment li nga def nii rëy na euh, doo doo doo gan ci réew mi ñu ci bari xam nañ la nga déplacé wu taal sa oto ñëw ba fii ngir maa la woo yittewoo woon la loolu moom maa la ciy ñaanal bu baax di la sant di la gërëm. waaw mais xam-xam mënta nekk ci nit muy diis. Mm. nañu bàyyi sama mbokki sëriñ yi nañ ma jéggal ci kàddu gi mm. nañu bàyyi rëy rëylu bi mm. ak diw dafa naqaree gis ak fukki numéro yi ak juróom-ñett nañ ko bàyyi ñun ñëpp yàlla la ñuy ñaan ñi ñëw ci ñun di ñaanlu ay nit lañ am ci ñun yaakaar nit nag li lay yomb soo demee ba mu bëgg laa jafe diw bala nga koo gis da ngay joxe nangam ak ay da ngay jox ay ticket nangam ay cinquante mille wala ay cent mille francs loolu doxul kuy dimbali nit ñi doo jafe ci seeni bët. Mhm. loolu moom ñu ngi la koy baaxee. yow numéro nga yor. man moom benn numéro rek laa yor. Mhm. ndax du ma wax lu ma gëmul du def lu ma mënul du ma làqu du ma nëbbutu. Mhm. ndax ku ñëpp xam laa loolu moom suñu borom def na ko ba noppi. kon bu may def damay def lu ma xam damay dugg ci loo nga xamante ni lu ma man la ndax boo yoree ak njaboot da ngay wax loo xam def loo man soo tëddee nelaw yenn garaawal yi ñuy def ci ñaan amul fenn. li ma gën a la neex nag mooy diw xam na dara wala diw xamul dara mooy dañoo waral na tëj ci benn saal boo nga xamante ni bu ñu ñëw duñ indi alxuraan duñ indi dara dañuy indi rek ku ci nekk ñu jox la big feutre jox la paquetu fooy jox la aywa ñu commencé dagg xaatim yi boobaa lañuy xam ki xam ak ki xamul hmm. buñ ko defoon du bari ñu ñëw de. ñiy luxus ak ñiy def bari ñu dul ñëw laa la wax. bàyyi jiili yooyu am na ñoo xam yow bu ma la ci yeewan. rango yu xonq ah yooyu ay ay ay faux problème la rek. mais nag yow musuma laa gis làmb nga ñëw yor béjjën wala yor yu xonq takk ay kii. man ak non dafa mel da ngaa xamal man alxuraan ak xaatim laa yor. Hmm. muy li wér loo nga xamante ni maa farat naa shay'an fil kitaab alxuraan amul lu mu faj. boo ko jéggee nekk ci leneen rek da ngay mel ni ñeneen. Hmm. mais yooyu doxal tuuti ci kanam yow dangay liggéey ñu fay la weer dee nga ne wax na ma ak sëriñ ba xaaral ma dem yor juróomi junni nga dag ko sa salaire ngir wax ju ma la wax nga gëm ko te fekk na la ma la wax amul ñu dox tuuti la man la ma la ma teg ko ci ay kàcc nga dox tuuti sama mujj rafet waaw sama mujj rafet loolu moom maa la ko wax waaw. naa la baax gërëm naa la. sant nan la ñu ngi lay sant di la gërëm. Mm. di ñaan yàlla rek kàddu yi lu ñu ci wax mu dëng mm-hmm. ñoo ngi koy jégglu matadik doomu aadama la lu ñu ci wax mu jub ndimbalum suñ boroom la waaw sant nañ la gërëm nañ la parce que àdduna moom nit da ngay oyof rek ni mbaxanam leneen amu fi. moo tax noonu ma bëggoon ku la soxla mun bëgg laa jot. mun ngaa joxe sa numéro. waaw ku ma soxla bëgg maa jot numéro bi moom fii ci Sénégal. 77 269 90 39. 77. deux cent soixante neuf quatre vingt ku ma ci woo dag ma jot awma beneen numéro pour ñiy falsifier yu demee noonu waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñu leen di jëfalaat bu baax a baax a baax Massylla la woon moom lañ dalaloon tey fii ci wasaare fas yéene woon waxtaan ak moom lu bëree bari loo xamante ni yittewoon nañ ko bëggoon nañ koo xam ci ab sëriñ ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf